COP9 Vous avez été convoqué Non, du tout. Ah, là, mon cher Non, je vais formulaire. Formulaire pour Déclaration patronale sortie. Ah, da nga déposé woon. bi ngay dugg ci gouvernement bi da nga déposé woon. waaw. da nga ñëwaat déposé waat. waaw. Mhm. la kon maa ngi lay xaar nga jël ko de teewaguma de. allo. kañ koy xaar. ñu lay xaar. ñu <laughs> ngi lay woo fi jëlee. sori ma sori monsieur Miss maa ngi dina xaar de <laughs> ah mu ko boo duggee moo génne xaar ah, di nga loo loo kii loo déposé waaw. lan naan ñoo mënoo sant mën a wele. dafa désolé waay. <laughs> ñi nga xamantene dafa am ñu am ñu jël alalu réew mi mënuñu ko def seen tour di ko def ci seen tour ñeneen ay xarit wala ay mbokk wala ay am di jàmm yoo xamantene pour bañ rek ñu laaj leen xaalis bi ngeen liggéey lii fan la jógee mu mu mujjee feeñal luubal muy ay prête dinañ leen waxtaan bu ñu ak ñoom pour ñu mën a seen bopp bu ñu feeñalee seen bopp duñu leen toppee dara non seulement duñu leen toppee dara waaye bu dee jël nañu alal loolu tax na ñu jël alal delloowaat ko ci réew mi ñun dinañ am loo xamante ne dañ ko leen koy ciy jox pour gën leen encourager. lii di rapport yi nga xamante ne tamit dañuy jël ay corps de contrôle samp leen ñu mel ni IGE mel ni Cour des comptes mel ni nag ñuy dem defi ay rapport rapport yooyu war a dem ci procureur sénégalais yi nga xamante ne ñoo soxla lu leer ci ni ñu saytoo seen alal loolu bu soobee yàlla dina jeex ci réew mi ndax fu rapport génnatee ci cour des comptes génne ci of nag askan wi dinañ xam rapport bu lu lu ci buñ ko dee yóbbu ci yoon nag dinañ ko yóbbu ci yoon bu dee am na ñu ca tuumal loolu yoon ay wax ndax taqee nañ ci wala wuñ ci ñii nga xamante ne dafa am ñu am ñu jël alalu réew mi mënuñu ko def seen tur di ko def ci seen tur ñeneen ay xarit wala ay mbokk wala ay am di jàmm yoo xamante ne pour bañ rek ñu laaj leen xaalis bi ngeen liggéeye lii fan la jógee mu mu mujjee feeñal luubal. le petit Sonko la amul kenn koo xam ne ne amul kenn laa la wax koo xam ne da nga dépendre moom sa doxalin nekk doxalin bu rafet parce que sont mal formés amuñu benn vécu amuñu niveau aucun encadrement politique ñëw rek ne soobu dugg ci foog ne nag.

même soo xamee ne li ngay dox du dëgg sax tu dois s'inquiéter devant le juge am nooy doxee même boo amee fit mais santé bi daf ci boole leneen voilà loolu ça parle loolu il faut nit ñi xam ko bi muy bi muy dem di wuy sa convocation là comme que confrontation ju boobu dafa naroon am ñu jàkkaarloo te gën na ko gis ñaari at genn wàlla comme dañoo miinante xamante lool ah daf ko préparé ci retrouvaille boobu ba nga xam ne da ngay xam ne bu doon man maay juge bi man Farba Ngom di Mouhamadou Ngom disqualifié naa ko bu yàgg parce que ñëw bi dafa ñëw di seet ak koo xam ne da nga koo fan gën nga ko gis te mënoo koo wax boo xool dara nga bëgg ko te noo koo jot problème lay doon ci yow. nga amal problème Adji Sarr. waaw Adja Adji Sarr nga am problème ak moom ndax yéene naa ko mu dem màkk bu ci yàlla àndee heure bu paree li muy noonu dinaa ko utal billet màkk xëy na mu dem mu dem aji quoi Adja Adji Sarr. nga am problème ak Adja Adji sar léegi bo amé problème ak Adja Adji sar problème bobu jeexul parewul han ah, ci mbir bobu nak ñu pare ci élection nga jël cadeau au lieu nga seet da ngeen mos dégg ci limite sa fay gemmiñ di wax yépp di saga mos jël cadeau tontu ci mbir Adji sar ci opinion publique lu tax lolu do neex nga lammiñ bari nga wax bëgg nga lu tax Adji sar bi lay tumalel mëno ci indi tuuti éclaircissement yeen daal Adji sar yeen journaliste yi lay waxal Adja Adji sar li gars yi ñu lay waxee do yooyu nañ ci tontu tuuti même bu dee one minute ñu xam ne au moins amal na ko tontu comme dafa rëy lamine ah dafa lamine di wax rek chaque seconde chaque weer chaque trois semaines di organiser ay point de presse nañ ci mës a wax olof kaalan ousmane sonko man maay wax ak yow man monsieur ousmane en matière d'intellectuel mën na am mën nga ma jàngal mais ci wàllu politique boo fi ñoxee ma jox la ay cours la yabal la woon la ne xamoo sa bopp lenn laa lay wax kuy wax dara te li ngay wax nga am ci tiitaange doo wax ak télé wala wax ak rajo bu dee def am ñoo xam ne dañ laa tiit wala maayen benn waay laa taxal mu ne far ba faut être vigilant da ngay xool sa kër gi ndax cible nga ma ne premier opposant yow la man kan moo wax cible la man dinaa nekk ci nguur andak Makissal, Macky Sall nekk si défendre samay droit di am titangé xana état rek man mi man mi wallahi man ma le nombre de départements vous avez parlé de 54 départements monsieur Ousmane Sonko avant que Macky Sall avant que Macky Sall di dem Massar dans ce pays, il n'y avait que 45 départements. Après Karmassar et venu s'ajouter, nous avons 46e département. Il faut noter. da ngay jël ay cours nga noté Nous avons solo campagne man duma dem on est dans un pays de droit et démocrate on est dans un pays de droit et démocrate Quel mënul téré ken dem fenn ci bir réew ci du Sénégal mais ci le politique biñu bokk terrain bon, bo ñëwé matam xam rek la lay wax ñaan na la comme li ngay faral di def 10 h 11 h dajalé ay kenn du ko yëg comme ni nga yëglee ne Matam ngay démarré nañu xam bis bi ñu xam heure bi ñu xam jur bi ñu xam fan la boobaa nga xool boo boo boo amee fit rek Ousmane Sonko Farba Ngom nee na boo amee fit boo ñëw Matam nañ ko yëg boo ñu bettul dinañ la dalal dalal bu rafet mais boo ko jegee doo ko wax kenn du am ànd bi encore ci walu sen yewi bobu yewi la la yewi ay cuune ngeen nan ngeen di mune japp ci walu politique ño xam ne ne amuñu âge voté xana xor leen code électoral bo amul 25 ans mëno nek député ngeen jël ay boy moins de 25 ans diko dugul dans les listes d'investiture encore le maire de la ville de Guédiawaye Eh, mooy yéen. buur rek lay def. sama gars yi vidéo bi joo ko seetaanandoo ndeysaan àddunaa ngi nii de ñi nga xam ne ni démb ñoo nekkoon ci nguur gi di def lu leen neex ñu leen di woowee ay goro président tey jii nii of nag woolu na leen ñu ngi noonu di dem ñu nar leen audité ji nar la xool alal bi nga xam ne nii muy alal bi nga xam ne nii yor nañ ko. ñu saytu fan lañ ko jëlee comme président Bassirou Diomaye fay ni mu ko waxee képp ki nga xam ne nii jël nga alalu askan bi na ko ñëw delloo si waat loolu mooy bu yomb bi boo ko delloo si waatul dinañ la enquête ba jàpp la te bu ñu la jàppee di nga delloo si alal bi te dinañ la tëj ci prison bi mu doon li nga xam ne nii nag sénégalais yu bëri maanaam patriote ñi nga xam ne nii voté nañ président Bassirou Diomaye fay doon na seen yitte muy lan sàcc yi nga xam ne ni sàcc nañ alalu askan bi ku ci mel ne Mame Mbaye mbay Mbaye Prodac ku ci mel ne Alioune sàll rakku président ak ku ci mel ne Mansour Faye képp ki nga xam ne nii sàcc nga alalu askan bi wala jàpp nañ la ci ay enquête nga delloosiwaat alalu askan bi ndax tey jii ni loolu la ñuy xaar ñoom nag bi ñu fi nekkee woon ci nguur gi dañoo foogoon na ne lu leen neex def lu leen neex wax te dara du leen ci fekk lii la Olof Njaay di wax sàcc bi nga xam ne nii du rëcc jarul yàq say nelaw yàlla nag moo ay ci fóotu mbuur da ngay fóot ba weex ba foog ne yaa ci nekk mu ñëw taw sa kaw ñii nag dañoo doon def seen pexe foog ne dinañ ci génn mais tey jii nii dinañ xam ne ne lépp dëgg la. la wala amul. waaw loolu dafa leer. dëgg du romb nopp. merci beaucoup président Bassirou jommay Faye kàddu yi am na solo taxawaay bi am na solo fexeel ba sàcc yépp delloo si xaalisu askan bi. ndax sénégalais yi nga xam ne nii ñoo la voté loolu bokk na ci li leen gën a yitteel muy suñu xaalis mu dellu si wàcc ñun fond Covid beeg aluñ Sall suñuy 400000 lépp mu ñëwaat bay Prodac bàyyiwuñu kenn képp ki nga xam ne nii jàpp nañ la enquête jàpp na la wala dara lu ci mel ni nag wala Cour de comptes def na enquête ci yow ba jàpp la nga nga delloo si waat xaalisu askan bi sama gars yi vidéo bi tey loolu la woon di leen jox di daje ci beneen yoon ci beneen vidéo jërë ngeen jëf Si vous voulez y doog vidéo, une vidéo, vidéo bul vous abonné liker partager parce que ça nous aide vraiment